waaw suñu taxawaay si phase nationale yi moom euh, dañ koy defarlu bu baax a baax comme ni ñu waxee rek à chaque fois ñu nekkee ñu fi rek pour solo si mi rek ñëw toog si stade yi euh, des fois li nga xamante ne moom mooy euh, ODCAV bi ma nekk sax avant dañuy def ay activités yu bari parce que dañuy yëngu ci li nga xamante ne moom mooy social bi dañuy yëngu ci économie dañuy yëngu si développement yongu si ci ci li nga xamante ne moom mooy santé bi mën ay activités yoo xamante ne. déjà def def nañ li nga xamante ne moom mooy sensibilisation si euh, si euh, li nga xamante moom mooy accident cardiovasculaire parce que jour à chaque fois dañuy def dañuy ñëw rek commencé entraîner sans pour autant ñu def visite médicale comme il le faut dinañ ñëw rek dina leen ñu dem rek euh, def li nga xamante ne moom mooy seen licence mais ñu des fois avant phase yi di commencé dañuy def formation def li nga xam ne suñu huit mars aussi tamit à chaque fois dañ koy doxale mais tey ñun aussi ren dañu dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jóge ci région yi muy suñu moroomu jigéen ñu dalal leen fële sa ci sunset nekk euh, fële nga xamante ne moom mooy euh, Yoff dalal leen fa euh, defaguñu activité bi parce que suba dinañ tenir réunion pour xool suñu activité nan lay démarrer mais incha allah am na lu bari loo xamante ne teg nañ ko fa lu si mel ni soirée dansante o oh, ñëpp ñoo xamante ne ñoo si département bi Pikine Rufisque Guédiawaye ñu ñëw assister ak ak ñi moom mooy suñu président yi ñu ñu communion nekk nekk une famille xam nga retrouvaille parce que ñun phase yi d'habitude daawuñu tas mais comme bii nii ñun ñëpp mënewuñu daje ñun ñëpp dañoo tas ñu ne nañ ko def retrouvaille rek ñu daje fenn nga def benn soirée wala euh, li nga xamante ne moom mooy euh, sortie bu ñu organiser demee suñu paree si suñu réunion ONCAV di wax ne ñun aussi tamit nag jigéen ñi bëgg nañ wane suñu bopp ci lépp loo xamante ne Euh, góor ñi ñu koy def parce que gis nañ ne suñu président macha allah amuñu seen fay ñaanal ki nga xamante moom mooy si président Amadou Kane ak euh, comité directeur ONCAV comité directeur ODCAV ñi nga xamante ne moom mooy euh, président Omar Diouf ñoom président Omar Ndaw ñoom Saliou Camara ñoom tonton Maxet ñoom ñëpp tamit jàppale nañu ci li nga xamante ne moom mooy organisation pour ñu mën dalal ñi nga xamante ne moom mooy suñu gan yi ba bu du am du ñu am lenn loo xamante ne métti na leen wala naxaral na leen ci phase yi nga xamante ne Euh, mooy phase Dakar bon au niveau de Dakar moom euh, dañu dañu prévoir ne dañuy dem seeti ñi nga xamante ne moom mooy les ASC yi yi ëpp violence buñ même buñ fay def sax ay sketch sax parce que déjà déjà comme ni may waxee rek ñun dañu dañu favoriser sport bi rek bàyyi culture bi te alors que ne sensibilisation bi ci culture bi si la gën a mën a war doxe si culture bi si la ñu war a gën a mën a defe ay sketch def ay ay ay film ba gars yi xam ne ne football bii nii du xuloo ak xeex mais on est une famille dañ war a wane ño ñun ñoo bokk ak baay ah nga à chaque fois comme ni may waxee rek li am nawetaan nii amul si championnat bi donc ñun aussi dañ ko war a ci lépp loo xamante ne moom la war a def ñu ñu éradiquer li nga xamante ne moom mooy violence bi bokk ndey bokk baay kaf foore ah ki gagné gagné ki perdre perdre kii match ñu xam ne ne noonu la ko yàlla dogal rek loolu la ban message ngay lancé yi nga xam ne ñu ngi nekk Dakar ñu gis ne mouvement nawetaan ñi ngi am ay jigéen ne ba tey def ban a a participer ci mouvement nouvelle waaw comme ni ma koy waxee rek euh, su sama début euh, entame bi bi ñuy def euh, kii interview bi nee naa la jigéen ñi à chaque fois dañ leen wax ne dañu ñëw stade rek pour solo simi wala dañu ñëw pour défiler alors que tel n'est pas le cas ndax ni nga gisee jigéen ñi ñu si bari dañoo am seen liggéey ku que nekk am nga fooy liggéey mais tey jii nii bu ONCAV ootee ñëppay bàyyi li ñuy def ñëw jàpp ci li nga xamante ne moom mooy liggéey ONCAV bi ñun yàlla daf ñu nattu sport bi ñuy def nii loolu moo tax bu bëgg sport bëgg football en particulier donc boo leen ñu gisee nii nii rek bu leen yaakaar na ne dañu sol tubéy rek ñëw taxaw non non dañu bëgg a liggéey de passage ñuy wax président amoon kon aussi tamit nag comme ni mu defee si côté góor ñi ñu tamit côté jigéen ñi ñu gën a suudewu gën a wane suñu bopp gën sumu fësal suñu bopp ci li ñuy def pour nit ñi xam ne ñëwuñu rek stade pour croiser les bras dañoo ñëw pour def li nga xamante ne moom mooy liggéey bu góor ñi di def ñu jigéen ñi mën nañ ko ah, aussi suñu présidente Khady Sané moom nga xam ne moom mooy présidente section féminine ONCAV di nuyu di nuyu comité directeur bi bi nekk ONCAV yëpp ah di leen jaajëfal di leen wax ne ñu gën a jàpp rek euh, mbooloo mooy doole di leen remercier encore une fois.